هقى البكاء على سادات أمواتي تبكي الأراضي عليهم كالسماوات بوكو جولي دي بوكي تالبي نيجي لين دي نيو دي يكتي سيني كادو تي نيغالو الشيخ محمود منتخا الخليفة العام للطريقة المريدية نيان سيني بروم مو ياغال كو في لول تماي كو اكبر naa li nga xam ne am na ko ci liggéey lislaam am ko ci liggéey Sëriñ Tuubaa suñu borom may ko kàttan ak ba lépp mu mottali ko ni mu ko bëggee mu yónni ma ay kàddu yu nuyoo ay kàddu kàddu yu cant ak i ngërëm sëriñ bi wax ne day jaale ñi nga xam ne ñoo fi bàyyi ko te nekkoon ci seen liggéey bi doon ko liggéeyal moom di liggéey Sëriñ Tuubaa ci ndigalam ba yàlla def seen bakkan rot fa nee na loolu nañ xam ne lam leen waxoon rek dañuy xam ne ñooñu shahid lañ shahid nag dara ëpp ko daraja ndax wa man yaxruj min baytihi muhajir ilallahi wa rasulihi summa yudrikuhu lmawtu faqad waqa ajruhu kon ñoom lañ doonul am nañ ko te ku ne xam na ne kat di liggéeyal Serigne Touba ba sa bakkan des fa loolu dara lu ko ëpp yaakaar amut kon nag sëriñ bi nee na na seen ñi nga xam ne ñooy seeni bokk na mu xel dal ci ñoom ngir xam ne wóor na ko ne ci liggéey sëriñ Tuubaa lañ doon nekk ba seen bakkan des fa kon nañ xam ne wóor na na ko na leen wóor na sëriñ jëf kon nag ñi ñaan eh, ku ci ne bu fekkee bàyyi na fi jëw yàlla na suñ borom aaral leen jëwal ko te xam ne fañ nekk moom eh, moo leen dàqal fii ñu nekk ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله كون لول موي لي كاد ييغا خامني واخون نا خو ييكتي جيمي كو سي سيني بوك جيمي كو سي ينتم ناخ يين لي نيكون اندك ين وار مستانسين بأذكار وآياته حديثهم ذكر مغن نافع سمد لا ذكر هن ولمنا في المقالات خوم بأسلحة أعداءهم خهروا حتى علوا بالمزايا والكرامات أركان بيت جميع القوم أربعة بها يؤسس بنيان الولايات سمت وجوع طويل بعده سهر وحسلة عن شيوخ بالإشارات قوم طريقتهم تكفي المريد أذى من المريد وأنواع القرورات